وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki julli di mbokki taalibe yi noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul di sant soxna Maymunatu Mbàkke bintu Seex al soxna Baali Mbàkke bintu soxna Maymuna waaye di jaarale ci sunub nuyoo ak sunub siyaar Cheikh Mahamadul Maspous Mbacke eh, Cheikh Abdoulahan Mbacke Gaynde Fatma waaye soxna Aïssatou Mbacke bintu soxna Badi mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi ngir waajal laylatul xadri fii ci soxna may monatu Mbacke mu mel ne waxtu nekk rek bu weer bi teroo nañu daal di tàmbali liggéey bi ci njàngu alxuraan ak xasida ak salaatu ala nabi ak mboolem ay bernde comme ni ko soxna si baaxoo defee ñu sant yàlla bu baax nag di sant mbooleem jawri ni daayira yi seen taxawaay ak seen posteef xam ngeen ne biir wi teroo ba mu am ñetti fan ci la tàmbalee dalal daayira yi ñuy jëbale seenub liggéey. daayira bi njëkk a ñëw nag mooy daayira Italie Brescia waaye daayira Cheikh yi soxna May yi Tuubaa Daaru Xuddoos bi ñu demee ba mu teg fukki fan daayira soppay maam Cheikh nga xam ne ñoom ñooy baaxoo indi muraake yi nga xam ne. moom la soxna si di yeewee mboolem jëwriñu daayira yi ak seen mbooloo bi weer amee fukki fan ba léegi nag tàmbali nañ liggéey bi di ko doxal comme ni ko soxna Astu Mbàkke Gaynde Fatma bëggee waaye amee woon ko ndigal ci waajuram wu sell woon di soxna Bali Mbàkke mu soxna May a Mbàkke bu Seexul Xadiim yaa laylatul xadri nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jullit bu nekk war nga ci taxaw euh, def ko pësteef te def ko yitte ngir bisu suñ borom subhaanahu wa taala la waaye bisu dundal alxuraan la ndax weer wi nga xam ne ci lay xewee mooy weer wi nga xam ne moo gën ci weer yi waaye xayru mi alfi shahr la suñ borom subhaanahu wa taala wax mooy bis bi nga xam ne moo gën junni junni junni junni at wala junni weer te kenn ku nekk rek war ngaa bàyyi xel ci ne Euh, màggal bis boobu doy na sëkk euh, njëriñ ci doomu aadama ndax mboolem lu ci waay def rek suñu borom subhaanahu wa taala moo la koy fayal boppam euh, nuy sant nag soxna Astu Mbàkke bu baax ci taxawaayam ak pëstéefam ak yitteem ju rëy ji nga xam ne am na ko ak yéene ju rëy ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal yàlla liggéeyal maamam soxna Maymuna Mbàkke waaye liggéeyal waaru ji waajuram wa soxna Baali waaye liggéeyal mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi te ko seen ngërëm noo ne ko soxna sa daan defee muy mbooleem buntu kër sëñ Tuubaa yi kër gu ci nekk rek bés bu yàlla sàkk soxna su ko maamam ja daan defee waajuram ba ba ba ba bésub laylatu xadri noonu la koy continuer incha allah. daayira bi daayira soxna Gaye Cissé Touba Sourou ko sëñ Mourava Cissé daayira bu yàgg nag la soxna may la ko ànd ko soxna Baali tey jii nag ñu ànd soxna asuti ko ñaanal wér tam yàgg fi te wér ñu yàgg ci ginnaawam waaw daal moom. tey ñoo ko forcé na ko am foog nga dem siyaare ji waaye fii nee na daanaka mënatu fee ñëw yàgg koo liggéey ci barke sëñ Touba ñu leen di sant di leen gër waa kër sëñ Mahmadan Lo Touba ci daayira soxna Faati Baraan Lo mi ngi tuddee Miftaaxul Xuyoor ci ndigalul soxna Asloo mi nga xam ne nag moo fi nekk di ko siyaare te di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi lool te wér. képp ku fi indi sa sa alal wala nga indi fi diw wala nga indi fi ceeb wala nga indi fi suukar wala nga indi fi lépp loo xamante ni ne lu jëm ci bis bi la soxna su dana ca dolli lu ëpp la nga indi jël lépp rek jëbbalaat ko njabootu Serigne Touba gi. noonu la ko euh, ay waajuram daan defee ànd kook mbooleem ñi nga xam ne. ñoom lañ àndal liggéey bi di ay jëwriñ sëñ Fallou Gala la sëñ Mor Faasa Mbay mi nga xam ne lay ñëw di jottali kàddu yi di jottali wax ji ba mbooleem fu ab jullit nekk mbooleem fu taalibe nekk mën a gis sa bopp ci liggéey bi te loolu mooy ndigal li mu jële woon ci sëriñ Mouhamed Mbacke mu boole ko soxna baali waaye soxna Astu Mbacke it feddalewaat ko ci moom noonu la ko ànd ak sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Abdoulaye Mbacke Gaynde ma ñuy ñaan sunu boroom lu ñu ci yéene te bëgg ko ci rek ñun suñ borom ñu ko noonu noonu lañ ko àndee mboolem jëwrin yi waaye jànkati xasida yi ak jànkati alxuraan yi ndax mbokk yi doomu aadama yi di taalibe yi ni ñuy indee seen i alal noonu la ñuy indee seen limu ay kaamil seen limu ay xasida seen limu ay salaatu ala nabi ndax soxna soxna maykat liggéeyal ko dafa neex te it képp ku ko liggéeyal bu la bu la bu la fayee seexul xadim dana la fay yónni la subhaanahu wa taala eh, fay la kon loolu doy na doy na sëkk rek kenn ku nekk rek bàyyi xel liggéey bi te daf ko yitte kon noo ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu jaglelee ñu bokk ci ñi nga xam ne ànd ak soxna Astu Mbàkke fas yéene nekk ci ginnaawam nag day jëfe ay ndigalam ba faw rek incha allahu taala di wax na ñi ñëwagut it incha allah leen fas xaar ci eh, wàccaay wi rek lay taxa de alxames ji di ñëw lay doon dañuy bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom di guddi ñaar fukki fan ak juróom benn yamook la 4 afril incha allah fii ci kër soxna Maymuna Mbàkke bintu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool yàlla nañ suñu borom defal ndimbal ca yéene jëmu amoon ni ko Serigne Fallou joxe woon digal noonu la ko Cheikh Abdou feddale woon Serigne Saalihu ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp noonu lañ ko àndeek moom li commencé ci ganaar ba ci gileem sëñ Bassirou Sarr dafa waxoon soxna may na ko danaa mottali sa sa ñetti ginaar yooyee ginaar gu ci nekk danaa ko def junni mel na ne kon ñetti junni ginaar yi day ñëw boole gëlee mag ba ci ay baa soxna Astou Mbacké yal na fi yàgg loolu te wér bis bi kat day wax ne moom rek la am mooy bis soxna may mooy bis soxna baali mooy bis bi nga xam ne moo mooy yitteem mboolem lu mu yéene liggéeyal waa juróom ba ñu ànd ko moom eh, ak mboolem taalibe ak jullit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. soxna may ginaar la toon dungam hurnal dafa jinnat la dubatal dafa nungal tingir ngal jingum di laylatul qadar laylatul qadar may samba soxna may ak seeti man ay ci buntam dafa nu xuppi jam tamam ba am laylatul qadar laylatul qadar ليس سيف المدل بيدر يقول لقائنا ومن لبيت بدء من في كل ليلة القدر ليلة القدر فلكمك بواتنا في الملك خملينا أنقل سرم وفا لك كلام لم يفا في كل ليلة القدر

Sonia may ba gudu ke ke ta dile, numa bin mudale, numa bin mudale, yelo mele.